بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نونجي يكتي نيو أفزيارة gu ak ndokkeel gu mag gunge di ko jëme ci ñi teew ci néegub yàlla bi yépp teewe jataayu xam-xam ak diine bi ñu fi baaxoo amal ak ñi teewut te nekk ci bitti tey bàyyi xel jataay bii gannaaw boo xam ne nag jiital nañ ci sunu xol ak sunu xel siyaara imaamul akbar cheikh muhammadul muntaqa xalifatul am li di jël nuyoo ak siyaara boobu yépp nag di ko teg ci jëwriñu liggéey bi di sëriñ aafiya muhammadul muxtaar di am mbégte nag ci dellu siwaat bi àndaat ak sunu mbokk mu baax bii di seexuna ahmadul xadim sàll ngir wala seqat ak yéen jataay yi daayiratu muqaddamatul xidma baaxoo dundalee weeru koor ci barab bu tëdd bi mu tànn nag tey ni ko sëriñ Cheikhu naa waxee tem boo xam ne ci yi ëpp solo ci jullit yi di war di bàyyi xel waxtu wu nekk la et rawatina nag ci jamono ji ñuy dund mu di jàmm ak jàmmoo ku ñi nga nekkal loolu dafa nekk loo xam ne comme ni ko sëriñ Cheikhouna waxe ci ubbiteel waxtaan wi looy tal lu nekk rek da nga am jàmm li jox solo su waxtaan wi nag ci wax yi ñu koy waxtaanee ak ci jamono jii tey te bu ñu seetee danañu gis ne mboolem cinq continents yi wala ñeenti goxi àddina yépp amul fenn foo xam ne amul daayu ay gu fay tàkk di faagaagal bis benn bu nekk lim bu takk ci ay doomu aadama waaye di détruire di mabbu lu bari ci loo xam ne ay doomu aadama ñoo defoon effort yu mag dajale ay milliards yu bari tabax ko pour doomu aadama yuy xëy ci minute yu néew maanaam détruire lépp faagaagal yu baree bari ci ay doomu aadama te ña leen koy def ay doomu aadama lañ ni ñoom loolay nekk loo xam ne li alxuraan doon wax ci ñu préserver jàmm fu mu am ñépp def seen itte ci lu koy aar sàmm ko ba dara du ko jële fu mu nekk fu nekk dara du ko xajamal fu mu nekk fu ne lanu alxuraan waxan jox na ko ci ay avertissement yaakaar naa ne kenn ku nekk yaa ngi koy dund bis bu nekk muy wattaqu fitnatan ja laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa waalamu anna allaha shadidul iqab borom bi subhanahu waxam na ne na ngeen moytandiku fitna ndax fitna kat daay la goo xam ne bu takkee du yem fa mu takkee du yem ca ña ko taal law ba àgg fuñ ko jiitu loolu nag tey kenn ku nekk yaa ngi koy dund tey guerre bii am rek fam am sori na lool fam am ci Europe Europe gannaaw bu nu Europe soree fa mu am ci biir Europe ci fi gën a ci nu gën a sori ci Europe la waaw muy Russie ak Ukraine waaye tey conséquences yi tey kenn ku nekk ci nun ñi yaa ngi koy dund fii ci biir Sénégal di ko dund sa biir kër bopp ndax kenn xamutoon ne kat ci nun wala ñu néew ñoo xamal ne kat délai bi nga xam ne moom la ñuy defaree farine bii boulangerie yi di lakk mburu mi ñuy jëfandikoo soxna yi di ci defar beñe bi ah ñi war a togg domoda di ko jëfandikoo kenn xamutoon ne ci réew moomee lay bàyyi ko la ci ëpp ah kon bu réew ma amee fitna ak nag lu baree baree bari ci lu ñuy jëfandikoo ci suñ réew yii foofa la doon bàyyi ko waaye yëgulu ci woon dara bu jàmm day am doo yëg lu bari waaye biñ demee nag ba daay ay takk ba lu bari lu fa daan bàyyikoo bàyyikootu loolu lépp nag dafay impacté ci yu bari gis nañu jamono yi gaz bi ak essence bi jamono yi ndakaaru xëy nañ benn bis daanaka pour nga gis bidon gaz et daanaka kenn mënu ko da ngay wër ba sonn boo dem ñu ne la gaz amul ci weeru koor bi ñu toll démb bi may xëy la ma mbokk mi may liggéeyal ne ma waxal sa chauffeur bi kat baye ba mu jël plainte parce que fan yii yëg nañ ne essence bi dana manqué lool effectivement biñ jógee es maanaam station yu bari boo demee da ngay fekk ñu ne la amatuñu ñi ko am da ngay rag-rag boo xam ne kenn du xam ne mu toll ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tey prix yi gis nga ni mu chéré lu bari loo xam ne loo daan jënde benn da nga ci def ñaar wala ñaar ak genn wàll ñi ngi annoncé barki démb ne transport aérien moom itam bokk na ci yi nga xam ne subir na conséquence yi guerre bi dund fii ci Sénégal parce que vol yu bari yoo xam ne dañu daan ñëw nekk vol direct léegi dañuy def maanaam escale technique ngir lan tey stock bi ñu amoon fii ci carburant ba avion bi bu wàccee balay delluwaat fa mu jëm mën a rempliraat lim soxlawoo ci carburant li ñu am ci réservé mënatu leen a permettre ñuy may avion yooyu fii ñëw ñuy duyaat donc avion bi day obligé def escale technique wàcc foo xam ne baaxu ko woon a wàcc pour mën a jëlaat maanaam carburant pour mën a dellu fa mu jóge woon loolu tey indi tardement yu baree baree bari foo war a dem àgg fa da nga am retard lu gàtt gàtt ñetti waxtu ba ñeent mën naa dem sax ba juróomi wax te loolu ñu naan mu yem fa waaye continuer sax day gën a metti ndax day dem ba foofee mu daan escale di fa amee essence sax tey moom it day am jafe-jafe ba du ko fa mënatee amati bu boobaa nag kon maanaa vol yi day gën di néew tënku gi nit ñi tënku ci dem ak dikk gën a bari te bu ko defee itam yi wol yi daan indi ci xeeti ay marchandises ak loo xam ne tey lu ñu soxla woon la mënuñu ko ñàkk day feeñ yooyu kon muy loo xam ne kon da lay waxe solos jàmm loolu kon islam bi mu ñëwee comme da nga sëñ Cheikh wax na ko ci jalbeen gi doy na sëkk rek ci wax solo si lislaam jox jàmm muy lislaam ci boppam mooy jàmm baat la boo xam ne mi ngi soqi ko ci jàmm waaw ngir li ko tax a jógit mooy d'abord penc mi ci boppam ak penc yépp jàmm di fi sax di fi yàgg ndax bu jàmm amul dara du mën a sotti moo tax nag islam bi mu ñëwee et li mu njëkk a def ci biir maanaam fexe ba jàmm jooju nga xam ne mooy laltaay lépp moo ubbi ay buntu yu bari yoo xam ne day indi maanaam jàmm ci barab yépp wëlbati ko yaatal ko ba mu daj fépp waaye wëlbati ko it aar ko ba fu mu dem fu nekk du fa jóge ñett yooyu mooy li nga xam ne mooy combat l'islam bi jëkk loolu moo waral e mu farataal nit bu nekk boo dajee sa mbokk li ngay njëkk a def boo ko fekkee ci barab bala ngaa waxante ak moom dara wala nga jëflante ak moom dara islam dafay farataal ci ñëw nga nuyu ko nuyoo nag ci islam bokkut ak nuyoo ci nun ci sunu aada nuyoo ci islam mooy nga ne ko assalaamu aleykum yow mii ma fekk fii yàlla na jàmm nekk ci yow waaye yàlla na nekk itam ci sa njaboot gi nga jaboote waaye yàlla na nekk itam ci barab bii nga nekk yàlla ko fi yàlla saxal lu waral loolu wala doo ko wax assalaamu aleykum donte kenn la kum ji dafa ëmbaale moom ak njabootam ak moom ak ay dëkkandoo ak moom ak barab bi mu nekk ndax bu amee jàmm moom ci jëmmi boppam képp te njabootam amul jàmm du am jàmm bu amee jàmm te ay dëkkandoom amuñu jàmm du am jàmm bu amee jàmm te barab bi mu nekk amul jàmm du am jàmm moo tax assalaamu aleykum ngay wax mu ëmb yooyu yëpp loolu ngay njëkk a wax ak moom ñu tere jullit bi tere goo xam ne sax ñenn ñi àgg na ci sax tere gu taratar ci nga ak ci fii barab jàkkaarloo ak nit waxante ak moom lenn wala nga jëflante ak moom lenn lu dangaa jiital nuyu ko ba ku tontu ki yàlla yónni ci ñun ne ku tàmbalee ak yow ay waxta nuyu sax bul ko wuyu bul ko tontu waaye dëggal itam ki nga xam ne moom la ñu nuyu nuyoo bu mate noonu moom it mu nuyoo nuyoo bu gën a mat bu ko mënul mu delloo biñ ko jox nuyoo bi gën a mat mooy wa aleykum salaam waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu yal na jàmm ji nga ma ñaanal maa ngi lay ñaanal jàmm ju ko ëpp ju ànd ak yërmande yàlla ak barkeelug yàlla maanaam tabbi ci yow law ci yow ba àgg sa njaboot ak lépp loo jaboote loolu tey koo tàmbali rek waxagu leen dara ngeen ubbee loolu kooku ubbi na buntub jàmm kon wan na leen nit nag ne ñii ngeen ubbee buntub jàmm nag da ngeen a da nga ko fekk si xëy na ngeen war a waxtaan wala ngeen war a seq lu ngeen war a def noonu ngeen ko ubbee jàmm nag noonu la la islaam jox ne la kooku ab joxañ la bu la islaam jox ci ne la ngeen war a waxtaane lépp da ngeen fexe ba na ngeen continuer ci dynamique bi ngeen tàmbalee dara loo xam ne lu mën a andi fitna wala mu mën a xajamal jàmm ji ngeen ubbi ko ni ngeen ko mooy ko ci seeni wax ak seeni jëf loolu lay jàngale ci loola ba tey noonu it moo waral e jullit bi boo dendee ak sa mbokku jullit même bu tislee ba sant boroomam nga ndokkeel ko ñaanal ko sunu borom dolli yërmandeem dolli ak wéram loolu lépp tey lislaam da koo indi muy ay yoon yoo xam ne tey ñuy rataxal sa diggante ak sa mbokkub jullit ndax sa mbokkub jullit mi nga xam ne yëg na ne jàmm rek nga ko yéene ba lépp loo xam ne lu xew ci yow ci saasa mu réagir wan la affection bi mu am ci yow muy lim la ëmbal ci cofeel te loolu dara gën cee rëy nga delloo tis di sant sa borom te nga delloo ne la yàquka allahu waaye waaye yàlla na yàlla dolli ci yow yërmande dolli la ak bir loolu dafa neex dafay kii ci xol waaye naka nooyu bu islaam santaane yi ne sa mbokk mi lépp lu ko dal ci bànneex nanga ko ndokkeel ca loola ñaanal ko mu jikko bu ko yàlla joxee gan muy doom bu ko yàlla wërsëgale nga dem ndokkeel ko ca loola ñaanal ko doom jii kat màgg te amal ko njariñ amal njariñ boppam amal njariñ jiineem yooyu yëpp tey di ay rapport yoo xam ne luñ saxal jàmm la waaye bu fekkee ne itam dafa am tiis wu dal ci biir këram wala ci bopp ah nga dem massawu ko waaye laxasaayu ànd ak moom yëg-yëg ba jàppale ko ci lépp loo xam ne luy wayefal loola ca moom ba nga xam ne tiis wa lu rëy rëy sax gis gi mu la gis ci peggam day tax mu woyof lool ci moom loolu lépp itam di ubbi ak a yaa ci jàmm waaye noonu mu ubbee yaatal bunti jàmm yooyu itam daf ci boole nag e li nga xam ne te mooy la ëpp solo mooy bunt yi nga xam ne wala porox ndoll yi nga xam ne ci la aw ay mën a jaar wala baaxoo jaar ba ñëw lépp mu tëj xam ngeen ne bokk na ci li nga xam ne toujours fu fu ngeen dégg rek daayu ay tàkk fa la ca ëpp moom la woon démb ak barki démb nag mooy li ñu tudde bordu konte ci wàllu xeet taasub ci wàllu xeet wala bordu konte goo xam ne la ko waral pas-pas la booy wuute ci wàllu diine wala wàllu idéologie ñaar yooyu fu ngeen ci dégg rek fitna doo la ko waral bu dee bordu konte ci wàllu xeet ci ñii jàpp ne kat ñoo nekk sangi ñii kon ñoo leen war a supérieur ñeneen ñi ci des duñu seen nawle kon nag waruñoo tolloo ak ñoom waruñoo tolloole ak ñoom it li nekk ci pénc mi ci ay xiiwal parce que comme ñooy seen sang duñ seen nawle kon ñoo leen war a tiim bu dee nguur ñoo ko war a yor bu dee barke ñoo ko war a yor bu dee lu ñuy sédd la it ñoo war a séddu ba doyal ñii doog a séddu parce que duñu seen nawle loolu muy li yox tafriqul unsuriya la nga daan dégg ca Afrique du Sud ca apartheid ba loolu la woon li xewoon Amérique li xew fenn fu ci nekk ba tey jii tey li nga gis ci Afrique ci ay réew yu bare bare mu am fa loolu lay waral benn xeet boo xam ne dafa jàpp ne moom moo superver super moo superviser ñi ci des ñépp ku war a falu ci ñoom ci wàllu adduna ci nga war a ñoom la war a bokk ku war a falu ci ñoom ci wàllu diine yi pouvoiru diine bi ñoo ko yore ni mu amee ci wàllu adduna ni la war a amee ci wàllu diine ñeccarat moom ay sàmba sugum gay la ñuy war a jol diñu leen war di marginaliser bu ko defee nag loolu mooy jul bu nekk ñooña demee ba gis ne loolu injustice la loolu mooy andi révolte alquran nag teel a wax ci loolu yaa ayyuha allazina amanu alquran teel a wax ci loolu lu baree baree bari yaa ayyuha naasu inna xalaqnaakum min dhakarin wa unsa naasu la wax yaa ayyuha naasu inna xalaqnaakum min dhakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaa'ila li ta'aarafu waaye inna akramakum inda allahi atqaakum sunu borom nee na dëgg la yéen ñëpp maa leen bind ngeen nekk ay góor ak ay jigéen bàyyi ko nag min nafsin waxida wa xalaqa min a zawjaha wa basta min uma rijalan kasiran wa nisaa lañ ngeen nekk ay giir ak i peuple yu wuute ci ci maanaam physiquement wuute ngeen ñii gudd ñii gàtt lool ñii diggu doomu ci wàllu deru yaram ñii weex tàll ñii xongu coy ñii xeereer ñii ñul kenn ku ci nekk itam noonu nga wuute ci ay jëmmit laa la jagleel ci xam-xam ak man-man ak am-amit noonu ngeen ci wuutee mu ne waaye yooyu yëpp nag las di gënee nekkut ci loolu ngëneel li nekkut ci ëpp ci loolu wala ci wuute ci wàllu deru yaram walla wàllu melokaanu yaram waaye mooy lii seen raison d'être ci kaw suuf nekk seen mission en tant que doomu aadama nekk sama xalifa ci kaw suuf loola mooy ka ca gën a góorgóorlu gën caa farlu kooka rek foofa la ñuy natt ak mbaax ak ngëm ci yàlla ku la ca ëpp la rek taxawaay ca sas yu ñu ko tobbil ku la gën a góorgóorlu ci bay ko nam ko war a bayee kooku mooy sa sang moo la gën inna akramakum inda allahi atqaakum waaye nag li taarafoo jiit dañuy dellawaat ci kaw li taarafoo kenn ku ci nekk ak loo mën a am lu bari bari bari bari mënoo muñ sa morom waaw wala réew yu mag yi muy Amérique ak et Europe ak Chine ak xoolal li ñu am li muy bari bari mais mënuñoo muñ Afrique yi li ñuy am li muy bari bari am na lu Sénégal yii am ak pays Afrique yi loo xam ne amuñu ko te mënuñu koo ñàkk li ñuy bari le bari le bari le am na lu leen yàlla xaj kon yàlla ne kenn ku nekk ci yéen di ngeen di wuute wuute ci am am ak man man a xam-xam kenn ku ci nekk am na lu ma ko xañ lu mënta ñàkk pour péncam defar ab société am wala lu mënta ñàkk pour diineem pour fàggu ëllëgam kenn ku ci nekk mënoo ñàkk sa morom kon nag li taarafu ba bëgg ngeen xamante ba kenn ku nekk la nga mënta ñàkk te sa morom yor ko nga mën a xool jaar ci yoon yi ma la wax nga jaar ci ci wàllu jëflante ak moom ba la nga ca war a am nga am ko ca ngeen weccente mu jox la nga jox ko mu ne moo tax mu wax ne mu ne kon bu dee ci wàllu adduna noonu la mu ne bu dee ci wàllu pas-pas itam et sunu borom nee na maa ko bëggee noonu pas-pas danay faral di wutale nit ñi ci wàllu diine ngëm-ngëm kii gëm lii kii gëm laa kii gëm la kenn ku nekk jàpp ne la nga gëm moo gën la sa morom gëm la nga nekk moo gën la sa morom nekk sañ nga ko ndax gëm loola moo la ca bay waaye nag fësal ko fës bu ëpp nag ba ka nekk ca laneen ngay jàmmarloo ak moom di tuutal la mu nekk ak di ko tuutal loolu fu fitna am ci wàllu pas-pas ci wàllu diine loolu moo ko fa andi mu di ñu bëggul ay diine di xeex la xew gis nga fële ca Afrique gay ca féete penku ca diggante jullit ya ak ñeneen ñu dul ay jullit mais gis ngeen itam li xew ci Afrique gi féete saw ci Nigéria ak ci Mali ak ci Burkina Faso ak réew yi du wër ci diggante jullit même sax ak jullit yoo xam ne ñoo bokk diine waaye maanaam ci déggin ci biir diine lañ lañ lañ ay déggin yu néew rek la ñu wuute et ba tax mu andi fitna jee nga xam ne tey conséquences yu ñëpp ñoo ngi koy dund alquran wax ne waxuma sax ñi ngeen bokkal benn diine waaye ñi ngeen bokkalu diine sax man la soob ma tërale ko noonu loolu la wax yonente bi li kullin jaalna minkum shaatan wa minhaja walaw shaa rabbuka la jaalakum ummatan waxida walakin li yabluwakum fi ma ataakum loolu moo tax mu doxale ko noonu maa xàllal askan yépp ak xeet yépp ay yoon ak ngir kenn ku ci nekk itam am sa dustuur wala saw tëraliin woo xam ne ca ngay àtte sa mbiri bopp mooy siran bi siratan wa minhaajan la wax am nga sa sari ab bopp boo xam ne ca ngay àtte sa mbiri penc ak sa mbiri doxiinu adduna ak sa jëflante mu ne loolu nag test la bu ma leen di def pour xam seen capacité ci mën a yanu ndénkaan bii ma leen jox muy xilaafa gi ci boppam mu ne kon nag li am solo mooy ngeen maa la gën maa la man loolu du lu ñuy wax fastabiqul xayraati rek fastabiqul xayraati kuy kenn ku nekk na laxasaayu góorgóorlu fexe ba bu àggee ci génne résultat lam ma ne moroomam du lu mu koy wax waaye lu mu koy wan la loolu mooy mbir mi kenn ku ci nekk góorgóorlul ba fexe ba la nga ma ne sa moroom noon na na na na na na nga ko ko wan waaye bul ko ko wax loolu mu xeex ko ci anam bu yaatoo yaatu nga seet nag tey loolu tey la ca islaam santaane suñ ko doxal e lu baree baree bari tey lii am tey ci fitna du am ndax lislaam même bu dee ci jullit ak kudul jullit xoolal la ci alquran wax qul yaa li mu wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam qul yaa ayuha alkafirun laa abudu ma taabuduna comme moom du yàgg ka yàgg ba ma jaamu fekk si leen ci li ngeen nekk di ko jaamu yéen itam wala antum aabiduna ma aabudu du yàgg ka yàgg ba ngeen fekk si ma ci li ma nekk ndax bañ ngeen mais ngeen du ngeen ma fekk si wala antum aabiduna ma aabudu wala ana aabidu ma abattum wala antum aabiduna ma aabudu kenn ku nekk sax nga fa nga nekk ak ca la nga nekk jàpp ne moo la doy kon nag waaye yaa xayti lakum diinukum waliyati jàpp leen li ngeen doy te bàyyi ma ci sama liberté ma jàpp ne ma doy loolu man aj la boo xam ne buñ ko doon doxal ci lépp tey e yiy am du xew liy am ci biir diine yi diggante diine ak diine du am waaye li nga xam ne it day andi fitna te moo bari lool ci même ci biir diine yi lislaam ci diggante jullit yi muy chia yi ak ñi ñuy tuddee ahlu sunna wala ci diggante ahlu sunna wala ñi nga xam ne ñooy tuddee ñi nga xam ne ñooy dund l'islam confrérie yi ak ñi nga xam ne ñooy dund l'islam biñ tudde ñoom laneen ni salafit wala laneen xeebante gi xeebante gi ci moom ak xeexante gi ak waxante lu ñaaw ak waxante lu bon buñ tënkoon ci man ajul islam bii ci ki nga wuuteel ci ki nga wuuteel kon loolu du xew waaye gis nañu ne kat lu baree baree bari loo xam ne tey mi ngi am ci ay musiba li ko waral muy ci àdduna bi yépp ci jëlu kii tey askan woo xam ne tey union soviétique ak ñi muy xeexal loo rek la askan woo xam ne tey ñoo xam ne tey dañoo jàpp ne ñoom noblesse bi ñoo ko yor ñoo war a accumuler pouvoir ak lépp di doxale nu ko neex ñeneen ña dem a dem ba mënatu ñoom muñ loolu ñu fippu bu fekkante ne kenn ku nekk bàyyi na sa xel sa morom jàngaleen islam yi du am li nga xam ne it moo am ci wàllu pas-pas muy li ngeen di dégg ci ay xeex yuy am ci ñoo xam ne dañoo bokkul diine wala ñoo xam ne sax ñoo bokkul diine waaye bokkuñu ay école yu ñu bokk li ciy xew ci ay waxante lu ñaaw ak ci defante ko ba mu andi andi fitna loolu lépp ñàkk a tënku ci njàngum islam la waaye bu ñu tënkoo ci njàngum islam kenn ku nekk da ngay jàpp ci li la li nga li la doy te li nga xam ne moom la sa moroom jàpp itam nga bàyyi ko ci liberté boobu danañ ci dellu soit ci lu gën a yaatu sax ci kanam tuuti ndax alquran wax na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam beneen bi ci des wax na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ikraha fi diini xat tabayyana rushdu min al ghayy seetal loolu la ikraha fi diini effectivement mënta nekk nit ki mën nga koo forcer wax loo ko lum bëggutoon a wax mën nga koo forcer def loo ko lum bëggutoon a def ndax yaa ko ëpp doole waaye mënoo koo forcer gëmloo ko ci biir xolam lum bëgg lum la te gëm mënta nekk mu ne ko kon nag soxlawul ngay sonn di jéem a forcé nit ñi leeral leen rek li nga leen war a leeral ci luy dëgg bàyyi leen ak seen liberté ne ko ndax walaw shaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an su ma sooban man yàlla ma forcé ñëpp ñu ñu ñu jaar ci wenn yoon comme nag man mi man mi man mi nga xam ne maa moom yëf yi am sañ-sañu force ñëpp te suñ ko bañ a sañ a bañ maa leen bàyyi kenn ku ne ak sa liberté gannaaw bu ma la leere lii li gën ci yow tey ak ëllëg bàyyi la sa liberté nga tànn yow itam yamal foofu te bu leen jéem a forcé afa anta tukri u nasa atta yakunu mu'minina mënta nekk loolu lépp wax na ko nga xam ne kon l'islam même li ñuy wax jihaad ci lislaam nekkutul jihaad pour forcer nit ñi jihaad bi nga xam ne mooy jihaadu lislaam dëgg-dëgg du jihaad pour forcer nit ñi pour ñu gëm wala dugg ci biir diine islaam déedéet jihaad la pour défendre pas-pas buñ seetee jihaad yi am yépp jamono yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñàkk a bàyyi nit ñi jullit yi nga xam ne ñoo tànn diini islaam ñàkk leen a bàyyi seen liberté ñuy dund seen diine ña ko gëmut dund lañ gëm lu may ñu ne leen du ngeen ko fi wootee yonent bi doo fi wootee lislaam doo fi dundee lislaam attaqué ko bund xataal ko loolu mu jóg nag défendre boppam kon jihaad yi am yépp pour défendre pas-pas la ak défendre liberté d'expression la waaye du jihaad pour forcer nit ki mu dugg ci biir islam ku ko defit la nga def laneen la waaye déedéet l'islam lim digle mooy leeralal nit ñi udduhu ila sabil rabbika bil hikma wal mauisatil hasana wa jaadilhum billati ahsana booy woote wooteel ci yar ak teggiin jéem a convaincre nit ñi jaare ko ci seeni xel ak joxe ne ay argument yu leer fa sakir innama anta muzakkir laysa alayhim bi musaytir fa zakir innama anta muzakkir lasta alayhim bi musaytir loolu la yonente bi fàttali leen fàttali rek lañ la def loolu waaye waxuñu nga angale leen waxuñu nga forcé leen waxu ngeen nga fodom leen waxuñu leen nga leen nga di leen gëdd déedéet udduhu ila sabili rabbika bil xikma ak wajaadi um billati hiya ahsanu loolu la islaam santaane ci woote kon lépp ngir bañ a andi loo xam ne dafa mën a andi fitna ci biir askan bi naka noona ci biir bareet bi nga xam ne itam ci andi aw ay la fu bari e rawatina rek ci sunu réew yu néew doole yi muy injustice li ñuy wax kumba am ndey ak kumba amul ndey tey am réew nga xaaj ko ñaari xaaj am ñoo xam ne tey luñ mën a def ak lu garaaw garaaw jaaxum lu rëy rëy dara du leen ca fekk yoon du leen jàpp kañ ko def bu deman ba jaar ci yoon bañ ci itam bu ñu leen dugalan ci biir kaso bi bu ñu leen war a tëj fukki at wala fukki at ak juróom un mois sax duñ ko fa am wala sax duñ leen tëj ak am ñoo xam ne nag la gën a tuuti rek buñ ko defee yoon dal ci seen kaw muy xajjale am réew ci wàllu yoon boo dee doomi borom barke wala doomi kilifa wala doomi ñañ tudde tabaxa ulaa wala nga bokk ci yow loo def rek jig na la loo mën a def ci njaaxum kenn du la laal dañ lay épargner boo dee doomi baatoo la nag loo def lu tuuti tuuti yow sa adduna tuuti loolu muy injustice boobu islaam ba mu ñëwee loolu la njëkk a wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko li ma la yónni mooy injustice boobu aman nga fexe ba dindi ko fi fépp foo xam ne sa penc la sa njaboot fa nekk nañ fexe ba dund lool buñ dund loolu waaw wa isa xakamtum bayna naasi an taxkumoo bil adli bu ngeen dee atte da ngeen ko teg ci maandute yaa ayyuha alladina amanu kunu qawamina bil qisti shuhadaa lillah walaw ala anfusikum aw il walidayni wal aqrabin yéen jullit yi yéen ñiy atte wax na ko yéen ñi nga xam ne ay avocat ngeen di layal ñiy atte ak ñeen ñi nga xam ne dañ leen jël comme ay témoin ngeen di seede ñi ñuy atte yéen ñépp na ngeen jël dëgg teg ci seen kanam waaye atte naka sudul noonu ak seede naka sudul noonu bari ana lu yàq piñ ci andi fa fitna te loolu moo ko waral ndax da ngay dem ba jox dëgg koo xam ne amul dëgg ña ca des rewal mu ne kon nag yow avocat bi yow kii seede yow kii atte donte sa baay ngay atte sa ñaari wajur wala say propre frère say rakk wala say mag wala say nijaay wala say bàjjen ak sa ndeyu ndey lu métti métti rek waxal lay dëgg loolu ñu gis nag tey fa tabarakallah tey sunu réew yi yépp tey lu baree bari lu fi indi fitna ay geraw ay révolte ay ay manifestation yoo xam ne dañuy lakk lu dul jeex ci loo xam ne tey taal lu dul jeex ci loo xam ne yàq lu dul jeex ci alal faat ay bakkan lu ci baree bare lu ko waral injustice injustice kon l'islam moo tax mu wax ne nañu góorgóorlu ci dool na ñëpp góorgóorlu ba réew mu nekk na fa justice am mais justice bu jaarul yoon di jàng lu am ci fitna ci àdduna bi yépp la ci ëpp moo ko andi kon loolu islam wax ca lam ca wax dem ba wax lu am solo loo xam ne tey am na aada yoo xam ne dafa aman ci ci arab yi yaatu woon ko lool am fii tam ci sunu xeet yi nekk fii ci biir Afrique ba ci biir Sénégal mooy képp koo xam ne daal digganteem ak say bokk naqare woon na démb ak bërki démb ba ay bokkam defal nañu lu ñaaw lu bon say bokk loola danga koy nar denc daas fa naadal fas yéene waxtu woo leen jekkoo rek fayu donte ñooñe ay génération la saxit muy li ñu tudde saaru saaru ci ci ci ci ci arab waaye aman nay ci suñu jiir yi nekk fii damay bañ a tudd waaye am na jiir yu baree bari fii ci Afrique ba ci biir Sénégal yoo xam ne fayantoo tey noonoo képp koo xam ne famille boo xam ne dañoo seeni maam ak seeni maamaat dañoo noonoonte woon ba defante woon lu ñaaw ab xeex masana jaar seen diggante ba kenn ci mën a wax ne diw mii maamam moo rey sama maam wala sama maam moo rey maamam wala baayam loolu dañ koy dañ koy denc di ko donnante ku jekku rek kañ mujj a jekku moom bu ak ay sëtam wala sët sëtaatam jekkoo it donte ñee faatu nañ bu yàgg ba fàtte loolee dañuy dem fayu biñ nekkee Égypte lu déeme am na koo xam ne man ak moom ak ak Abdou Samad doomi Abdul Basit benn bi jàng noo bokkan benn ban buñ daan toog bi mu demee ba jàng ba ñu ba ñu am sur licence ba àggal moom ba mu àggee këram ca guddi ga lañ ko rey te ki ko rey dafay fayu loo xam ne kiñ ko def diggam ak moom sax ab génération daanaka jaar na ko mat xaw naa jege téeméeri at waaye ña nga doon seet rek gis nañ ñu bari ñu mën a fay waaye dañoo nañ bàyyi ba am koo xam ne yaakaar la ci ñoom mooy seen yaakaar ci as ci ci ci famille bi ak askan wi bu màggee tekkee rek ñu rey ko loolu yàggut alquran wax ci loolu wa isa akamtum bayna naasi an taxkuma bil adli alquran wax ci loolu wax ne yaa ayyuha allazina amanu kunu qawamina lillahi shuhada bil qist wala yajrimannakum shana'anu qawmin mooy boobu ala alla taadilu iadilu wa aqrabu li taqwa wane ne ay conflit ak règlement de compte kenn du ko doonante ëpp naa dem nañ ko bàyyi ak ña dem ñaana leen yàlla jéggal leen te nun ñi fi def ñu jéem a defaroo fàtte la weesu woon yooyu yëpp nag muy boo nekkee doomu baadoo la ñu marginalisé la boo nekkee doomi buur noonu boo nekkee minorité ci am réew ñu marginalisé la boo nekkee minorité ci ab roq ñu marginalisé la loolu dafa nekk loo xam ne dafa yàgg andi fitna yonente bi sallallahu alayhi wasallam la jàngale ci lu am solo am na benn bis boo xam ne dafa am kenn ci julli ji ku am nattu ba sàcc mbubbum jàmbur dem ci kër benn juif dénk ko ne ko dencal ma sama mbubb yi juif yoom xamu ci dara jàpp na ne mbubbam la rek moom ko dénk ah ñuy topp di topp ba fekk buuma ci kër juif ñu ne ah saaj mu ne ah dañ ma ko dénk de ku la ko dénk mu ne diw yu xool bu dib jullit jullit bee sàcc ñoo war a dagg loxo la ñuy war koy yar dañ xayma daal buuma su fekkee ne àgg na fu ñu war a daggee loxo ah bi loolu amee am ñoo xam ne dañoo bëgg a def daal yëf yi ci doomu aadama ci kaw ne daal gàcce la daal lislaam ñu ne ñëw dafa jëw di jàngale ak njub ak sell ñu ñëw fii ci madina gàddaay ñëw fii ñu bari ñëw fekk sinu ci loolu te ñii ay xërëm lañ doon jaamu ñii nekkan sax ay juif ñekk nekkan laneen te ñu xëy xëy kenn ci nun def loo xam ne tey lu garaaw a garaaw daal e ba noppi nag ci ëttub nag ab ab noon muy ab juif loolu ëpp naa bàyyi bëgg a wane rek ne daal nañ ko nëpp nëppal pour jël tuuma ji teg ko kiy fekk càcc gi ci biir loxoom wala ñu bëgg ne ko complice que wala yaa ko farak yooyu biñ ci nekkee di jéem a convaincre yonent bi wan ne ko kat ah moom kat daa bëgg a tuumaal kee waaye ay la yéen moom moom lañ fekk ci moom yëf yëg nangam te fekk na loolu amul ba yonent bi nekk di am kaliyaar ci jaaxle ci loolu alxuraan wàcci ne ko ina ansanaa ilayka alkitaab bilxaq li taxkuma bayna nas bima araaka allah wala takun lil qaa'inina xasima ñii buñ la dugal ci seen konër yii ak komplo yii ñu bëgg a def daa yabal ngir nga àtte nit ñi ci dëgg ak fu mu mën a dale ñii li ñuy wax ay tappale képp la sa mbokk nii kii bokk sa njaboot moo nekkul ci dëgg nañ ko jaarale fi ñu ko war a jaarale kii yoonam nekku ci seetal loolu tey bu doon ci tabar fa kàll ba doon ne boo muy borom bàkke wala lu mel noonu dañuy jeex na dañuy nëpp nëppal rek ka nga xam ne moom mooy way niw ji doole ji mooy nekk witti loolu lépp nag di loo xam ne lislaam daf koo fagguwal waaye bi mu faggu yi yëpp it tiiwut mu xam ne doomu aadama doomu aadama rek la jël na kon matuwaay yi war a am yëpp doomu aadama doomu aadama rek la fokk ak matari di ko dal muy juum moo tax mu waxaat ne innamal muminuuna ixwa kon nag fa aslihu bayna axawaykum allahu akbar muy lu am solo loo xam ne malheureusement ñàkk ko bàyyi xel ak ñàkk booy jox yitte moo waral lu baree bare bare luy xew ci suñ pénc yii ak ci suñ famille yii ak ci suñ kër yi di xew suñu borom nee na yéen jullit yi ay mbokk ngeen kon nag bu leen seetaan mukk yàqu-yàqu di am ci seen biir te jóguleen laxasaayu defar ko wala gàttanu ko mooy islahu saatil bay muy médiation sociale tey malheureusement da ngay fokk ñaari xarit yoo xam ne wala ñaari bokk yoo xam ne ñoo bokk lépp ñoo bokk benn baay benn way jur ñoo ko bokk ndeysaan muy benn famille mais seytaane dugg seen biir au lieu ay nit jóg sol seenu dàll dox ba génn seytaane sax dañ leen di mel ni dañuy ndokk loola ak di ko bànnee ko ah diw diw de moom moom léegi digga mu bokk ya moom moom moom de doy na war moom day moom day bu dee bu dee ab xalifa wala ku mag ca kër ga ah moom day digga mag ñoom rakk yi moom neexatul moom rakk yi de war nañ ko gannaaw rakk yi def nañ lii def nañ laa def nañ ah moom day boobu ne léegi moom duñ laalee nag kenn ku nekk di taw yi ña war a jóg sol seenu dàll yooyu jóg di ko tasaare ak di ko bu dee nit ak wëlëre boo xam ne ñoo àndan teq lu nekk ci lu baax doon ko jëflante ba saytaane jaar seen diggante au lieu nit ñi jóg sol seen aw dàll dox ko kenn ku nekk day reeteen ak a taw yi diw ak diw de yii moom ah ñooñu day seen duñu laa duñ duñ léegi da yoo tëb duñu laa leen teeti fi ne ne da ay noonu lañ yoo xam ne kenn ku ci nekk ah gars yi nangam nangam nangam kenn ku ci nekk di ki loolu bokk na ci lu naxal pénc ñu loolu la te suñu borom subhanahu loolu joxe na ci ay bindu yu yaatoo yaatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jullit yëpp wa in taifataani min al muminina tatadu fa aslihu baynahuma fa in baxat ixdaahuma ala al oxra fa qaatilu lati tabagi xatta tafiya ila amrillah nee na fu ngeen fekke ñaari kuréel wala ñaari bokk yoo xam ne ci jullit yi seytaane jaar na seen diggante jóg leen laxasaayu di dox ak a wax ba seytaane soo seen génn seen diggante jóg leen pour jéem leen a jubale bu amee koo xam ne kat daa lank nag ne du leen fekk ci seen di dal leen ci kawam ne ko yaa nekkul ci dëgg firiwaat ko daa ne unzur axaaka zaliman aw masluma sa mbokk bu tooñee na nga ko dimbale buñ ko tooñee nañ ko na nga ko dimbale ñu ne ko yaa rasulallah ci tooñ ki ñu tooñ moom man xam nañu ni ñu koy dimbale waaye ki tooñ daal lañu xamut lus koy dimbale mu ne leen ki tooñ ki ñu tooñ ni ñu koy dimbalee ma dolli leen ci li ngeen xaman mooy dimbale ko ba mu jot ak xam ca kam ko seqal ñu ne ko waaw loolu day ki tooñ nag ñu ne ko ngeen dimbale ko ci teel koo xamal ne bul sori ci mbir mi yaa nekkul ci dëgg loolu nga koy dimbalee bu leen wóoree ne moo tooñ nee leen ko bul sori ci mbir mi yaa nekkul ci dëgg bul ci wutante avocat bul ci wutante lenn dajaleel li nga am ci as tuut nu ànd ak yow dem ci ki nga tooñ dajale ay bokkam ne ko ay la yéwén kii moo la tooñ nangu na ne mooy la tooñ mu ngi lay jéggulu lillahi mu jeex loolu nga koy dimbalee mu jeex fi mais boo ko dimbalee ci wutloo ko avocat fayloo ko mu ñu layal ko ba mu ne ba mel ni tooñu tit ah loolu fii ci adduna la yam waaye bu yamal xiyaamee kat boobu digganteem ak boroomam kon nag teel leen koo dimbali fii yooyu yëpp tey eh di yoo xam ne lislaam daf koo indi ci lu leer beneen ba ca des ci moom la ma sëñ seexu naa daan wax naa sa aaya bi nekkaat bi ci bi rek wala tastawil asanatu wala sayya ndeysaan mu ne li di agsigo ci sa aaya bi xam nga subhanahu dafa wax ne xam nga règle générale mooy wa jasaau sayiatun sayiatun misluha lislaam dafa màndu nit ki nga xam ne daf laa def naka sudul noonu def la lu bon lu ñaaw am nga sañ-sañu delloo ko lam la def fayu tam bañ a ëpp bañ a yiis kooku mooy règle générale bi wa jasaau sayia sayiatun misluha waaye waman afaaja waaye nag wala tastawi xasanatu wala sayyi'a nit ki def la lu bon lu ñaaw wax la lu bon lu ñaaw nga ne ko dooma ko dàq am na ñàkk teggin bu tol ni jàkkaarloo ak yow summi tubayam jàkkaarloo ak yow ngir wan la ak ñàkk teggin nga dumóoyu ne subhanallah jël say loxo dar ci sa bët wan ko gannaaw yëmut ak yow nga summi sa tubay wan ko gannaaw wan ko kanam bu gis nga wëlbatiku wan koy gannaaw ne ko danga maa benn genn kanam nga wa man dama lay njaay njaay xool leen mooy li nga ma def moom laa lay delloo ba wisra alquran nee na yëmut ak nit ki def la lu bon wala mu wax la mu lu bon nga bàyyi ko ak yàlla jéggal ko wala tastawil xasanatu wala sayi'a comme nag nee na da ngay tànn lu man man yàlla tànn naa la idfaa billatihi ahsan bul fayantoo lu bon bul fayantoo lu ñaaw bul nangu nit ki am mbonam di la ko wàll xam nga nit ki wax la wax génn sa gémmiñ ji lu ñaaw ame woon habitude def ci sa cër yi lu ñaaw am koo xam ne dafa wàcc aw yoon ba def la ko xam nga soo ko ko delloo su la saagaa nga saaga ko rek mosoo saaga de waaye saagaloo nañ la day mosoo wax nit ki lu ñaaw génn dégg nañ lu ñaaw lu génn na ci sa gémmiñ mosoo koo def nit gis nañ nga def ko tey lislaam ne la tey bàyyi ko bañ koo bañ koo topp ca loola te féeteeg man yàlla nee na moo gën idfa billatii ahsan fa izaa llatii baynaka wa baynahu adaawatun ka annahu waliyyun hamiim ba nga xam ne même ki nga xam ne sax sab noona boo xam ne saa yu xëyee lu bon lay wax ci yow fu mu wéete di yàq sab der ak di ko def nee na yow boo ko gisee melal ni yow kii sab soppee ka annahu waliyun amim nang bul feeñal loola ci sab nuyoo bul feeñaloo sa jàmm te na nga na nga ko yamale ak ñi nga xam ne say xarit yi sopp di wax ci yow lu baax alquran nag bii bind laa jox mooy makaarimul axlaaq waaye alquran ñëw nag ne ah bind la nag man maa ko joxe waaye man mi ko joxe sax xam naa ne wa maa yulaqaaha illa lasiina sabaru bind la boo xam ne képp ku koo xam ne defuma ci yow nga mën a muñ yaatu dënn di jëlale ak a jéggale loolu doo ko man waaw loolu moom cërub ñi mën a muñ rek la waaye ñi mënta muñ moom dañuy wax ngàtt geen ngàttaati geen a koy fay man lu ma waay wax rek ma delloo la ko lu ma waay def man du ma épargner kenn waaw man lu ma waay wax ma delloo la ko lu ma waay def ma delloo la ko ah alxuraan nag nee na loolu moom ku bëgg a nekk sang bu tiim ñépp doo def noonu wa maa yulaqaa illa lasina sabaru ku yaatu dënn moo mën a muñ moo mën di jéggale waaye nag wa maa yulaqaaha illa zu xadin azim waaye ku ngeen ko gis mu am cër ci yàlla bu ko ñëpp ñeewee am wàccuwaay ci bindeef yi bu kenn amut sunu borom subhanahu wa ne lii la ko ko may lii mooy la ci jiitu muy jéggile ak jëlale ak bañ a fayantoo kon ñu gis ne kon l'islam dafa établir jàmm ci biir société même ki nga bokkul diine sax muy ab jiit wala muy ab chrétien ngeen dëkk ci benn quartier ca Grand Dakar wala fii ci Mbacke Bawol wala ci Njaareem alxuraan danaa wax ne bu dee ci wàllu pas-pas moom kenn ku nekk mën naa jàpp ci la mu gëm di ko doxal war maal moromam maandu ca am maa nag li aju ci li ngeen bokk nag muy li defar seen pays di ko yéwénal loola moom alxuraan dafa xam ne ayow ma leen ngeen jëflante ca la nga ca mënta ñàkk tam yor ko noo mën a def ba jot ca jot ca waaye lam ca mënta ñàkk te nga yor koy loo ko ca mën a jàppale nga jàppale ko ngeen ànd ci àdduna ak luy defar seen pays ngeen solidarité ca laa yanhaakum allahu an illazina lam yuqaatilukum fi diini wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruuhum al birru albirru mooy ëmb lépp luy mbaax lay seen birru demal ca lay seen birru albirru moo ëmb lépp lu baax mu ne la ngeen jëflante ci njekk ak teraanga ci wàllu adduna loolu ay ñu leen moo tax gis nga yonente bi sallallahu alayhi wasallam da ngay dégg ñu naan ah mbubbam mam tayle woon sax ci kër yahud ba kon ma nga doon jëflante ak ñoom ci njekk ak teraanga ah ba yahud bi néew yahud bi rombee mu daal di jóg ñu ne ko ah xanaa xamoon ne kii ab yahud la mu ne xanaa du ab xanaa du doomu aadama kon loolu dafa nekk lu am solo su ko defee nag ay am benn ay boo xam ne ñépp la tënk buñ ca sukku woon rek yooyu ci wàllu pas-pas ak ci wàllu diine du nu jawal muy wala tasubbu llaziina yad'uuna min duunillah xoolal subhaanahu wa taala ni mu màggee bindul ñun ñépp digal ñu ñu jaamu ko yabal ab yonenti muy ndaw lu ñëw état bi biir niñ ko war a jaamu ay nit lank bàyyi fa yàlla dem di jaamu ay ay ay ay ay ay ay doj ñenn ñi di jaamu sawara ñenn ñi jaamu ay nag ñenn ñi jaamu am ndox ñenn ñi ñenn ñi ñenn ñi ku nekk di jaamu ay caaxaan xoolal téewut yàlla daa wax ne ah donte lee bàyyi nañ ma fi man mi war a jaamu dem di jaamu ay doj ak i sawara ak i ndox ak i xar ak i bëy ak i nag bu mu tax nag ngeen di leen sabooteel ak a sikkalal loore ñuy jaamu wala tasubbu llazina yad'una min dunillahi fa yusubbu aduwwan bi ghayri ilm ndax bu ngeen ko defee ubbil ngeen ma bunt loolu mën nañ ko indi rek ci loo xam ne ñun dund nañ ko xam ngeen ne nit ñi ñëpp diggante juróomi at yii réseaux sociaux yi li ngeen ci dégg ñu di ko yëkkati ci ay kàddu di ko teg ci suñu kilifa yu tedd yi ñu amul lu may moom kenn da ko mas a dégg li ngay ubbi YouTube wala Facebook wala nga ubbi foo ubbi rek sa appareil jël sa kilifa ñu exposé ko ci façon bu ñaaw di teg ci ay kàddu yoo xam ne kenn xalaatutoon ne nit ñi ñeme na koo def mu nekk lu banal mais sabab sa la ca ëpp réaction la mooy koo dal koo xeebal la mu yor mu xeebal la li nga am alquran a ko wax comme comme yàlla mi bind ñëpp moom lañ épargne wul yàlla ne bu ngeen ma bañee bu ngeen ba- bu ngeen bañee ku ma saaga man yàlla bu leen saaga yàlla yi jàmbur yi ndax ban loolu te ay bant lañ bu ngeen leen sikkalee wax leen lu bon man mii la ñuy dal ci sama kaw kon nag loo bëggul ku ko teg sa kilifa bëggoo ku ko def sa kilifa bu ko teg kilifa jàmbur ak lu kilifa nga xeebu xeebu xeebu bu ci sa yoon nekk bul ko ko xeebal ñu gis ne kon yooyu yu mat a bàyyi xel la lu bari ci ay luy xew suñ réew mi fa tabaarakallaahu jàmm dafee aman bu baax a baax Seex al Xadiim danañ ci ñëw ci am njàngaleem loolu yépp tey di ay fitte yoo xam ne kon lislaam ay bunt la yoo xam ne yu mën a andi aw ay yoo xam ne lislaam kon suñ seexu naa fang na ko kon ñu gis ne kon islam ubbi na mbooleem bunt yi nga xam ne tey mooy mën a andi jàmm ci barab di ko fa yaatal waaye di ko fa saxal waaye mbooleem lu mën a andi fitna itam te dab effectivement fi ne mooy andi fitna ci yooyu yëpp it islam wutal na ko ay saafara wutal ko ay garde-fou ak nuñ koy pege ba du yegsi léegi nag boo agsee ci ki nga xam ne kon moo waral moo ñëw nag pour delloo siwaat loolu yi ndax lii moo nekkan man ajul islam ñu dem ba wàcc ko Seex al Xadim ñëw ne diinun siwaa islam i laa yuhmadu indal ilaahi wa bihi lu jaddi kon delloo si yeesal gi mooy lan lañ doon dund démb ak barki démb tam baax tey wanal ko gannaaw loola Seex al Xadim ne naa ko delloo siwaat loolu moo waral ci wàllu jàmm Seex al Xadim moom bi mu ñëwee wax naa ko ci États-Unis ci benn conférence bi ñu doon def ci Nations Unies ma ne leen ay Martin Luther King ak ay Gandhi ak ñooñu ñëpp tey li leen wóotale ak Seexul Xadiim ñu ci bare bare seen non violence bi ñuy wax ab situation moo ko dicté mooy dañoo dem ba àgg ca ñàkk pexe am ci ñoo xam ne donte lee ñoom ay non violence lañu seeni njaboot nekkuñu ay non violence Seexul Xadiim nag li ñuy wax maanaa jàmm ci boppam muy non violence ak lépp tege ci jàmm dafa nekk principe boo xam ne daf ko inscrire dès le début mu bokk ci li nga xam ne dafa nekk asaas nekk mëdd ci aw yoonam toogul ba ab situation wala ñàkk pexe mu ne naa li lii fi sës naa ko def déedéet daa jub dara xewagut kenn bundu xataali ko kenn akku ko kenn menacé ko kenn def ko dara mu jàkkaarloo ak boroomam ne ko aska salaatin la tazuur bil aali wa sax bil udul wa bi yajaddidi sabil waaye nag bila aydan aw alam seetal loolu yaa wax jaarale ko ci làmmiñu ki nga yónni ci nun ne gannaaw bu ki nga yónni ci nun di yonent bi làqoo doo yónniwaat kaneen waaye nag njagam li daan xew ba ñuy yónni moom du fi jóg muy ay yàqu-yàq ak i mbon mbon yu ñu war a saafara war koo defar te beneen yonent du ñëw yaa wax ne yab as fii rax si kulli mi atin mu jaddi sam yonent moo na ko jot li jële ko ci yow ina laa yab ansu fii rax si kulli mi atin mu jaddi téeméeri at yu nekk dana yebal ku ñëw yor mission bi yonente yi yoran pour yeesalaat maa ngi ñaan jamono la daan xew ba loolu di am accident jamono ju yàqu nit ñi wan gannaaw njàngale ma rasulullah kon nag wëbbiyee jaddidi sabil maa ngi ñaan nga désigné ma nommé ma ma nekk kooka nekk mu jaddidi waaye nag bilaa idan loo xam ne du jur hostilité nag non maanaam yeesal la goo xam ne du jur ak noonoo sama diggante ak ñi ma ko seqal ci réew mi ak ci bitim réew ak ci pénc bi aw alami du jurit aw métit waaye bis di ayaad yi waaye bi laa bukkaay njaboot gi dañ jubbantiku ak siraatal mustaqim waaye ba rongoñ tuuru ngir ku ñu rey baayam wala ndeyam wala yaayam ci ab xare déedéet xare luuma bi xalina lil jinaan an xazwatin wa an hawaan maa ngi ñaan nga defal ma loo xam ne moo gën jaddu ngànnaay di xeex ak a xeexlu xeex boo xam ne ndaw yu toll ci jàng ñooy dem ca kaaye di reyante ndaw yu toll ci liggéey pour defar askan wi pour defar société bi suqali réew mi ñooy dem di reyante ji te ku ñuy rey doomi réew mi nga xam ne suñ ko fi bàyyee ma naxanteeg moom mën naa dem bu wuy si ma dëkk ab jullit lu ñuy yàq lu réew mi tabaxan maa ngi ñaan bi i xaninaa lil jinanaan razwati defal ma lu gën xeex waaye nag waan hëwaan ah waaye it nag ma musalit ci loo xam ne daanaka nag xeex a ko tane muy hëwaan muy nongu lu ma wërta nongu bu ma xeex de waaye nag la teem a xeex it bu mu doon nongu lu ma wërta nongu ah loolu kooku kooku loolu la inscrire ci biir kii gis nga ko biñ ko provoqué lu nekk ñu def ko ko imaginel xam nga lu gën a yéeme xam nga sëriñ bi mën naa nekk foofa sëriñ Cheikh naa sëriñ bi mën naa nekk foofa ngir ñu ne dimension booba mais li yéeme tey lu baree bari sax gëstukat yi damay jàppale duñ ci bàyyi xel xoolal Cheikhul Khadim condition yi ñu ko jëlee fii ci biir réew mi ci jamono yoo xam ne nangami téeméeri seex yoo xam ne kenn ku nekk ay junni ci ay mbooloo ñoo la topp te sëriñ bi ci boppam fa mu toll woon ci yow ñu xëy ci ak toojaange bu rëy rek maanaa def ko niñ ko def te ñi ko ko def di ay noon yoo xam ne minorité lañ ci biir réew mi tubaab yi boobu minorité lañ ci biir réew mi commandant de cercle boo dem bu ne muy bu njaareem bu Tiwaawan bu Cees fenn fu nekk gën gaa bari juróomi nit ñoo fay nekk lu war nangami junniy taalibe wër leen mën a xëy xëy rek maanaam mer jàppale rek ñu xëy xëy ne suñ suñ sang bee ñu def ne daal ñu ngi ko def mën a xëy xëpp foofa pétrole xëy taal ko wala ñu mën a xëy rek toog ci seen pénc da nga daan toog fii ci seen pénc fii ci ku mel ni tubaab ku mel ni kii Mbàkke Joor ku mel ni Mbàkke Bool ab tubaab romb ànd ak soxnaam gàddu fitalam yor kilootam jaar foofu ne day rëbbi taxaw laaj ndox remplir ab oto mën nañ koo rey foofu suul ko mais imagine la juróom-ñaari at ak juróom-ñetti weer yi sëñ bi génn kenn mun laa wax muy noon bi ak sopp bi benn incident boo xam ne am na diggante benn taalib sëñ Tuubaa ak noonu yi ko yóbbu woon ñu ne rey nañu tubaab wala dóor nañ ko wala def xoolal loolu lu yéemee noonu ak léegi tey li xew lu xew ñu xoolal kon sëñ bi yëmul ci maanaam yar nit yi ci dund jàmm waaye jëmmi boppam moom woote jàmm waaye dafa yar ay njaboot tamit ci ñu dund jàmm xoolal la xewoon la xewoon làmbaay bisub keroog la tooñ tena kalaame seexi bool ngir bëgg a fay lislaam yi keroog da leen a woo ci péncam làmbaay naa leen daanaa leen tàggalee ki laxasaay di boole dóor ak yow amul jàmm jàmm di bocc ay gobar di feeñal dàmm di boole dóor ak yow amul far jàmm lu ci nekk def na ko violence bu nekk def lañu leen ko mais kenn riposte wu loolu tey di loo xam ne lu rëy la loo xam ne tey nga gis bi mu demee ba dellu siwaat liggéey liggéey bi mu rëy commencé installé fii ci Daaru Marnaan ñu xëy xëy defaat tuuma ya xëy xëy andi fi ay char de combat ak lu nekk pour provoquer ko rek parce que booba Bàmba ji toll na foo xam ne bu ñu jihaatan dana métti ñor nañ waaye loolu lépp teewul rek gis nga ko te bañuy bañu bañ demee ba nara kii kër gi tam xam ne bu bàyyee taalibe yi noonu dafa digal taalibe yépp ñu génn kër gi bi ñu waree ñëw mu commencé moom yaa maalikal mulki am ja yaa malikal mulk xut ummatal mustafa ah yaa malikal mulk yaa man jàlla an xawadin iham jami al wara seetal ma ku lay def loola yow nga di ko ñaanal yërmande ak mucc jël ab leetaram axraj ci mooni yaa jumlatan qad tallasoo bi dalaali in man lam yakun waladun lahu aw walidu axraj ci mooni naasixiina bi annani abdul ilahi annani la mujaahid génn ngeen ma ne jàpp ne damaa yoraat ay ngànnaay bëgg a kii te loolu lépp ay tuuma la idi ujahidu ne waaye nag bil ulumi wa bi tuqa damay jihaad waaye la ma waxat duma ca deltu gannaaw wa bi jaddidi sa bil bilaa idan joojee duma ca deltu gannaaw inni ujahidu waaye bil ulumi ci taxawal ay daara samp ñu fay jàngale ñuy jàngal nit ñi bañ xam li ñu war a xam wëlbatiku di leen yar bañ mel ni ñu war a mel ba nekk ay modèle ci seen société ci wàllu xam-xam ci wàllu jub ci wàllu liggéey loolu laa bëgg fexe ba tabax ay nit ñoo xam ne réew mu ñu nekk mu ne fa économie réew ma àgg ñoo ko fa àggale fa njàngum alxuraan ma àgg ñoo ko fa àggale fa tasaaroo diine ga àgg ña jiitu ci ñoo ko fa àggale la loolu laay tabax man inni ujaidu bil ulumi wa bi tuqa ulum bi mooy xam-xam bi tuqaa bi mooy tarbiya bi mooy boole tarbiya jàngal nit ñi bañ xam liñ war a xam waaye yar leen bañ war a mel niñ war a mel amal njariñ seen diine amal njariñ seenu pénc décrire ay ngànnaayam da ngeen ne am naa ay kanu am naa ay bomb am naa ko waaye lan mooy samay samay samay jaasi say fii la si yafi tulaa man saldasu tawxiduhu wal idaul waahid xam-xamu tawhid bi jiitu lépp mooy sama jaasi waaye lu may def nag ca laa koy def lan mooy samay bomb ne ngeen am nay ba am naa ko mais wa madaati ilaati bia an bil ida wa bi a yufaariquni anidul xaaslu zikrun akimu oxkimat ayatoo mi man yu sax si umaa yuridul malik samay bomb mooy alquranul karim waaye ak efficace ci lay sukkandiku ba barab yi ngeen fi tabax danaa leen ci dàqe génn leen ngeen génn ci jàmm ak salaam ma dugal fa ñoo xam ne buñ jaamuwul yàlla du yàqal ku jaamu yàlla tey ñan ñoo yar fi nekkan léegi wa ma daa fi laati bi an fii la wax ayda wa bi ay yu faariqu ni adidul xaasiru danañ teqali ko ak ñun delluwaat fañ bàyyi ko woon bàyyi nu fi tey yaa ngi dégg bu ñu waxee ne tey ñaar rakkay ndar ya tey fañ fañ fañ doon defee loola tey ay gouverneur yu nekk taalibi sëriñ bi wala ñoo xam ne buñ nekkul taalibi sëriñ bi it ñooy taxaw laxasaayu ànd ak taalibi sëriñ bi di leen jàppale pour célébrer victoire sëriñ loolee mu doon wax lépp tey gis nañ ko tey li mu jur tey ci ay ndam loola loolu la doon ñaan loolu moo waral ba mu demee gànnaar fekk fa coow lu réerée ñoo xam ne dañoo ne sëti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñenn ñi di sëti gaa yu baax ci ay masala yu ndaw ñu nekk ca mel ni xaj ak muus di rayante guddi ak bëccëg di saagaante guddi ak bëccëg ci ay borom yi xam-xam ba ñëwee dégg ne kat kii kat am nañ gan gu rëy goo xam ne xam-xamu nit yemut ci xam-xamu sharia rek waaye aqiqa ak sharia la boole ak baatin bu mat sëkk waaye naar ñoom ci zahir si lañ lay njëkk ci ba àggal ñu ñëw indi ko ay masail yu bare bari ci yoo xam ne dañ caa aman ay wuute yu ci nekk ñu nekk mu gindi leen ca ba àggal waaye nag bind nag loo xam ne tey wax dëgg yàlla dustoor la boo xam ne ñun ñëpp muy waa gànnaar yaag waa Sénégal ak waa Arabie Saoudi yaag ñëpp buñ ci tënku woon maanaa jàmm rek mooy am ci biir askan wi ak ci biir jullit yi mooy dafa wax ne al ulama al muwaxiduna loolu bind jox leen xumaatu sharia xumaatun li sharia al mutahara waaye wal axtaab al muxlisuuna al muqarrabuna daabuna an al xaqiqa al munawara boobu dafa fekkan ñi nga xam ne ñooy ulama u sariya nga xam ne ñoom sariya bi rek la fiq bi waaw ñoom moom daal julli juróom weeru koor génne asaka fiq yi atte ñoom ñu fiq lañ mutasawifoon yi aw fee kenn ku nekk nekk sa langue kenn ku nekk di contre sa morom ñu mel ni dañoo bëggul luñu lu ñuy défendre ñii di défendre aqiqa ñii di défendre sariya kenn ku ci nekk jàpp leen complémentarité nga nekk sa bopp tool bi benn la parce que iman la islam ihsan la kii mi ngi ci toolu iman ak islam kii mi ngi toolu ihsan kon lépp benn tool bee waaye ñu teqali ko kenn ku nekk mel ni da ngaa bokkut sëñ bi nag andil leen lii ne leen ñi nga xam ne mooy al ulama al muwaxiduuna nga yi nga xam ne ñoom ñoo ñoo xam-xamu tawhid ak xam-xamu sharia la ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy aar sharia muy toolum yàlla bi waaye wal axtaab al muxlisuuna al muxarabuna azaaboona al aqiqa ñoom ñoo koy aar ci li ko mën a yàq ci biir ñii ñoo koy aar ci li ko mën a yàq ci kaw ñii ñoo koy aar ci li ko mën a yàq ci biir parce que julli gi tey su fekkee ne jóg naa fii ñu nodd tisbaar ma daal di julli ñeenti rakk yoo xam ne tey jullee naa ko niñ ko war a jullee ñaar rakk yu njëkk yi jàng naa fatiha aku saar toog taaye jógaat jàngiwaat fatiha ak noppi sëlmal ci wàllu sariya am naa julli mais aqiqa bi nag day xool man ndax bi may julli concentration bi ma war a def def ci julli gi sellal sama xol wékk sama xel ci yàlla def naa ko war a dee bu fekkee loolu amul alasinam am salaatim saahuna alasinam yurauna wa yamnauna maauna fa waylun moo ci jiitu kon Sëriñ Tubaa ne leen aqiqa bi ci boppam ñi nekk ci ulama u aqiqa ak ulama u sharia ñoom ñëpp complémentarité moo war a am seen diggante mu wax ne faxtiraamul jamii li waj illaahi mutaayin ñoom ñëpp nag respecté leen jox leen ab cër kooku waru gar la waaye mu teg te nag ne wa taxaabuk soppante baynal ulama rahmatullahi alayhim xayaatu sharia soppante jullit yi kenn ku nekk sa bopp gënal la sa morom mooy dundal sharia ci boppam mu ne wax tilaafu um nag fil masail taallumun wa taalimun wuute gu ñu wuute ci yenn masala kii gisee nii kii gisee ne kooku am njàng akum njàngale la waaye laa ataawa wala taxasub warta jur ak noono wala ak mbañante ci seen biir seetal loolu kon wane na ne ki nga wuuteel ci biiru masala kooku am njàng ak njàngale la boo xam ne day gën a yaatal mais warta jur ak noono léegi nag tey li yàq penc mi saagante bi am ci réseaux sociaux yi ak weddante gi ak defante gi lu bon mooy wuute ci ay masala kii ne maa nekk ci dëgg kii ne nekkuma ci dëgg kenn ku nekk di wax sa morom lu bon sëriñ bi nag wax ne loolu e day dundal sariya di ko yaatal e kon nag li ñu war a dund mooy li mu jàngale tey te te léegi programme la boo xam ne ba ko sëñ bi jàngale du tey waaye tey ah boo demee tey ñi bëgg a ànd yëpp moom la ñu ànd muy taawun taawun alama tafoo wa tasaamu fii maxtalam mooy li nga xam ne ñoo ci bokk te wuute ñu ci ñu dimbalante ci masala yu ndaw ndawaan yu sew sewaan yi nga xam ne ay détails la wuute nañ ci kenn ku nekk tollaree ci sa morom nongul ci sa morom loolu bu amee rek penc mi day yaatu waaye bu fekkee ne kenn ku nekk da nga ne li ma nekkee dëgg la koy nekk ay caaxaan la ñii ci biddaa lañ nekk ñii ci kufru lañ nekk kenn ku nekk di weddi sa morom di tuubaal sa morom ci ak ak kéefër ak weddi ak biddaa ak i caaxaan loolu mënta defar penc te loolu mësta am même ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seexal xadim e jàngale makaarimul axlaaq loo xam ne buñ ko toppan lii am ci réseaux sociaux yi du am wasbir ala sabbi wala tujib ahad xoolal baat boobu sëriñ Cheikhouna wasbir ala sabbi wala tujib ahad réseaux sociaux yi lu ko feesal sëñ bi nee na kalay ngàññ ak di la xas nee na muñal wan ko gannaaw wala tujib te bul ko jéem a tontu loolu mooy njàngaleem sëriñ bi de kalay bind ci biir réseaux sociaux di la xas ak a wax lu ñaaw ak a sànni ay kàddu seexal xadim nee na muñ ko wan ko gannaaw wala tujib ahad bul ko tontu mu ne waxul kama xaalal adibu wala xadd nee na benn adibu sufi bu mag bi ndeysaan dafa romb ab noonam bu koy sànni ay bu yàkkamti lool mu tolloo ak moom ba mu sànni ci ay nopp yi kàddu yu ñaaw ne mu sànni ci ay kàddu yu ñaaw nee na waa ju baax ci moom romb ko mel téeti téenati mel ni ku dégg kii den nag moom ne ko ah xanaa xamoo ne kii li muy wax yow la koy wax mu ne ko ah déedéet xam naa keneen lay wax ndax man siqu maag moom xam naa lu may war waxee nii wala xat amru ala laimi yasubbuni wa aifu fa qultu laa yaani seen xaddim ne defal loolu yëlla leen jëlaleel jëlaleel jéggale bul nekk di jël sa taal di ko tontu ay détails ak ay wax yu ñaaw ëppaleel sa bopp lool bokk ci bakaarimul axlaaq ndax Seexul Xadiim ne isit tasaabuba ma at takaazudi min aqba il xisaali kat taraaru kat taraaru bi nee na nekk di xasante ci pénc mi ak ci réseaux sociaux yi ak rajo yi ak média yi ak kenn ku nekk di weddi sa morom di tuumaal sa morom ne nekkul ci dëgg ay caaxaan la nee na moom ak kurpañante ñooyam dara ci du jikkoy nit ku yiw du jikkoy julli mu daal di ñëw nag andil nu man aj bu am solo boo xam ne xam naa sunu sunu sunu sunu doom ak sunu rakk yi toll ci di bind ci la pensée sëriñ bi di ko contextualiser bëgg naa xasida lii lu gàtt lu néew la waaye ma des na cee bind ab mémoire te mooy sëñ bi da cee décrire ci ñetti bayit rek itinéraire bi nga xam ne ay ñeenti gis mu am ba taal am réew wala mu taal pinc fi la jaare sëriñ bi décriral nu ko itinéraire bi wax nu it ni nuy def ba man koo gasabu dafa wax ne ay woo gis wu nekk dafa wax ne kuloo boo gis bu nekk werenteeku jur kuloo boo gis bu nekk werenteeku jur mais werante bu yàggee rek ba dënn yi tàng rek mu sotti ku nekk kuloo mu ne kon nag in xaraqte la abul biraa fassi bi maa i sumti wala iqdaa i allahu akbar seetal lim la jàngal ci état biiral jàmm nee na boo dee toog ak sa xarit wala sa wëlëre wala sa mbokk wala sa dëkkandoo wala koy liggéeyalu wala ku mën a doon ngeen di werante ci benn nee na bëgg a yëg ne sa dënn tàng commencé naa tàng rek ne gaawal seral sa tàngooru dënn ci noppi ak retiré wu ca waxtaan wa ca werante wa ndax boo continuer rek xóoloo daal di ñëw kon étape boobu pour nga pour tere na ko boo defee loolu rek boo tàmbalee di werante ak nit ne bu sa dënn tàngee rek nee na nee na daal di retiré wul nee na daal noppil arrêteel bul yem ci arrêté de du mooyul génnal retiré wul ca loolee ngeen doon wax dem ci maneen bi te bul continuer ah mu ne su fekkee ne nag sàggan nga ba étape bii nga rëcc ko werante wi fi ma la ne woon bu bu tàngee noppil te retiré wu defoo ko ah ba mu jur laal doon bañal muy xuloo mu ne falal in ladaxat ka aqrabul qisaami werante dëgëre bi nga ko jox tàngooru sawara la woon ko jox waaye xuloo moom dëgëre bi nga ko jox tooki tookey tookey jaan la ko jox mu ne bu la jaani xuloo mattee nag saggan nga ba werante wa jur na xuloo ba tookee jaani xuloo matt la nee na moom it boo ko gaawut lugg mu daal di wàcc nag moo jur ak noonoo ak mbañante ba faw mu ne ma tax nag in xaraxa in ladaxat ka aqrabul xisaami faraqiha bil afi wasalaami nee na boo demee nag ba rëcc étape ba ba dugg ci xuloo ba xuloo bi tàng ba ngeen xuloo ba kenn ku nekk wax sa morom lam ko la ko neex nee na bul ko yemale foofa rek mu dem nga dem ay am na ba noppi waaye yemaleel ay wa foofa nee na bu sa mer giisee ba xuloo ba jeex ne solal saw dàll dem ba fa moom waaw solal saw dàll dem ba fa moom nga jéggulu ko ne ko seytaane kat moo jaaram suñu diggante rek lii daal seytaane rek la maa ngi yow lii xajut suñu diggante man daal ak lu mën a xew baal naa la lépp loo ma wax ci biir xuloo yow it lépp loo xam ne rek waxal naa la ko maa ngi ñaan nga nga jéggal ma ko mu yem fii te mbir mi jeex ndax lii xajul suñu diggante te xat nee na lii mooy moom moom nga war a def ah nee na nag bu fekkee ne loolu rëcc na la nee na kon fokk noonoo am ndax lam la nga ko wax ak lam la wax moom kenn ku nekk da koy daal di jàpp noonoo daal di jàdd waaye noonoo ngay nee na ba tey rëcc gut ba tey ba tey jeex gut nee na noonoo boobu nag nee na li nga koy defee mooy yow boo ko bëggee saafara ci moom nee na fexeel ba nim in saawaratka xayatul adawa kooku jaan la kay jiit la woon kii jaan la xuloo ba jiit la woon nooro bi nag jaan la moom jaan moom day rey boo boo boo boo gaawul lugg ko ne fa rakki aat bi nus i wa saqaawa ne kii sam noonu boo bëggee dëgg dëgg dëgg dëgg faj ko jàngoro la ju ko dal tookee la juy daw nee na lépp loo ko tanee ci ndimbal dimbalee ko ko loo xam ci lu baax wax ko ko da bul am solo te la muy wax ak la muy def ne day mujj rek ka ànd na aw waliyun amin may xëy wulli la ko mu nooy népp xëy fu mu jaaran doon wax lu bon muy jaar di wax lu baax xam ne moom man mii kat maa doy waar waaye kii daal ab sang la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gaa yi wax yi ànd nag moom yépp te noonu woon ko di leen defal luñ mënta defal seen bopp di leen laa biiri ci alalam ak ceeb ci lañ ko kee seexal xadim it noonu kon loolu mooy yi nga xam ne kon mooy ay wasaa'il yi nga xam ne sëriñ bi ci boppam moom la andi woon ba gis nga ko ci diggante li nga xam ne mooy liy faral di am ci diggante lii xew kii lii la kii lii la te ngeen bokk di ay julli sëñ bi naan wala tuaadu man raaytum fa u yuxriju la ilaha illa allah ah kon nag ki nekk murit ak ki nekk tijaan ak xaadir beeg ibaadu beeg chia beeg ñépp see ahmadu bamba nee na la képp kuy wax la ilaha illa allah daal xamal ne sa mbokk la bul ko def noonu donte wute ngeen ci ay jëfe ki pas-pas it wute ba bu mu jur ak noonu seen diggante bul ko ëmbal lu dul jàmm sëñ Tuubaa yëmut ci loolu wa axrina bi xubbi kulli muslim bokk ci téere bi ñuy jàng sunu Matlabul Fawzayni ak sunu Matlabu Shifaa yi bi nga xam ne sunu saafara la sunuy soigné ci sunuy jàngoro am na ca bayit woo xam ne mooy daa bëgg nga di ko répété mooy del ñaan yàlla xiir la ci koo bokkal di wax laa ilaha illa loo bëggal sa bopp na nga ko ko bëggal loo bañal sa bopp nga bañal ko ko ndax kat ki yàlla yónni ci nun moo ne laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsihi kenn ci yéen kenn du nangu ne jullit la lu dul lu mu bëggal boppam képp ku muy wax laa ilaha illallah boppam da koy da koy nangul kon fii ñu toog fii tey ci barab bii tey képp koo xam ne amoo fitu yëkkati sa kàddu am na jataay yoo xam ne mënoo ñemewoo jataay jullit boo dem bu nekk am nga fitu yëkkati sa kàddu ne képp ku ma bokkal nekk ci biir jataay bii lu bokk di wax laa ilaa lu ma la yéene naa ca jiitu ko amut fitu wax loolu dekk goo am ndax bu fekkee ne am na fa koo xam ne yéene nga ko loo xam ne bëggoo bëggoo ko caa jiitu nekk goo julli Cheikh al Xadim nag ne wala tuaado man raaytum fa aw yuxriju laa ilaha illa allah ci kuy wax loolu tarixa yi gis nga lim ci wax wa kullu wirdin yorudul murida li xadrati laahi walan yaxiida tarixa yépp ay yoon la jëm ci yàlla sawaw intama ilal jilaani aw intama li ahmad tijaani moo xam tarixa si am tijaan bu abdul xaadir jilaani aw li siwaa umaamin al axtaabi wala kaneen ku dul moom ci góor yàlla yi ndax iskulu um xat an ala sawaabi kenn ku nekk ci yoonu jub nga nekkan iskulu um ku kullu um yatul muridina ila taati rabbil arsh ay suma jalaani kenn ku nekk sa it yoon mooy woon nit ñi yóbbu leen ci yàlla bil istixaama di ko nag falaa tasxar ahad min ubalaat tun kër ali uliyaat nga gis ab tarixaam ci ngay fekk kuy wirdu wirdu taj tijaan ba noppi nekk taalibe sëriñ tubaa kuy wirdu wirdu xaadir yi kuy wirdu wirdu saasar yi ak koo xam ne moom alquranul karim képp mooy wirtam yow mi ne alquran sa wirdu yaag moom yéen a bokk kon loolu kooku ku yaatal la ku ubbi mboolem bunti jàmm la koo xam ne bu mu toppee am njàngaleem liy xew di andi fitna du am mukk kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ doon tënk ci wàllu googu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu